jot na ci ñenn ñi nga xamante ne ils sont pour qu'ils restent fa nga xam ne mooy CMS am na ci ñoo xam ne ils se pas encore prononcés aussi xam nga comme lu de bonnes intentions dañ koy wax en français lu mu mooy euh, euh, boo demoon tey safara dama koy tekki tuuti pour que olof yi ñu jéem a comprendre boo hmm. demoon safara koo laaj mu ne la pourtant demoon lu baax laa si jublu woon on a toujours des explications sénégalais bi ñu góorgóorloo ba voté 2000 Ablaye Wade dafa ñëw remettre lépp en cause te ak Macky Sall askanu lëmb jug 23 juin ñu fal ko mu ñëw taxaw di def lu ko neex intention yu baax tey ji boo demoon teg ko mu ne la lu baax rek laa si jublu woon président Diomaye ak waa Pastef yëpp mënuñu ànd taxaw ñu ŋàññ ñi doxalinu magistrat yi demal nga xool ay waxu joo président Diomaye dafa ŋàññ woon doxalinu magistrat yi tey mënut wax ne magistrat yooyu lay déglu mm-hmm. mënu ko def benn ñaareel bi mooy système bi mu doon combattre ba ne système bi baaxut projet bi daf ne système bi fi nekkoon mooy système mu magistrat yooyu mu ne baaxut tey mu ñëw ne moom dafay déglu magistrat yooyu kon dañ ko fal rek mu door a gis baaxaayu magistrat yi. mais dafa wootee assise ba pare. mais boo wootee assise ba pare. yow say engagement ba mu am des conclusions aujourd'hui deux choses dama bëgg Sénégalais yi rek la benn affaire soit dama bëgg ñu fexe ba homme politique yi balaa kenn di fi waxati dara nga wax ak nit ñi ba pare xam li ngay wax ne mën na nekk wala mënut nekk. mais munoo ñëw di wax dara loo xam ne xam nga ne si xel ne mënul nekk nga taxaw mais mais est-ce qu'un homme politique mën na est-ce qu'un homme politique mën na dajale mën na organiser ay assises woo quand même toutes les parties prenantes un homme politique c'est-à-dire Fadel Barro yow mënoon nga xëy rek mhm. dem wote ca jam ñaajo alors que yow yaa ngi ci opposition benn ndaje pour ne bés bu ma faloo lii laa fas yéene def gis nga loolu moo tax vision baax ci homme politique hmm. ba pare boo amee vision da nga koy saxoo parce que li ci des ay modalités la ay organisation ay voies réglement pour réaliser une vision. réalité de pouvoir bi ñuy wax. comprendre nga ay réalité de pouvoir moom moo waxoon ne. ah moom moo waxoon ne gëmu ko. Hmm. mais réalité de quel pouvoir. réalité de quel bu fekkee ne non bu fekkee ne pouvoir bi ngay doon wuti mooy pouvoir bi Macky Sall yoroon hmm. réalité am kañ da lay tënk. Hmm. bu dee pouvoir nguuru la. pouvoir fal ñi la neex. pouvoir ok jubbanti ndox mu naqari la mais na ko askan bi naan man du ma ko naan. mooy réalité bi nga téye sa bu dee loolu mooy réalité du pouvoir da nekkoon rek ci lu Macky Sall nekkoon. kon la mm. doon di dee lu tax. pour lan nit ñi waroon dee. ça dire que pour man li may wax nii je le parce que pour man 2024 dama leen ko wax kenn gëmuma ma ne leen mm. nouvelle. dafa war a baax. Mm. parce que quand même peuple ne peut mënuñu xeex. mais mais nañu jël respecté seen i engagement yi ñu saxoo ko maa ngi ñëw yaa ngi may dagg rek. donc affaire affaire conseil supérieur de l'administration bu dee ñoom seen vision. Mm. mooy ne pour que ñu am parce que li ñuy craindre li ñuy craindre du crainte bu taxaw. la république des magistrats mais y a des pour éviter ñu am république des magistrats ba pare. président Diomaye bañ a siéger président de la république bañ a siéger ci conseil supérieur de la magistrature. moom loolu laaj. na loolu laaj na loolu Fadel. waaw def bu ñu ko andilee loolu mu mu saytu ko. Euh, bu ñu laajee bu ñu demoon laaj ko ngay dem xool. Mm. modèle mais y' a mais y' a tellement mm. mais demal ci dëkk seen yan dëkk yu dëkk yi avancé yëpp dëkku Scandinavie wala nga dem ci yenn yenn dëkk yi sax. Mm. mais yow wax ñu. wala yéen dëkk a y' a y' a plusieurs exemples. man dama bëgg nga comprendre damay waxee en tant que jàmmiste xam ne réew mi toll na fa. Mm-hmm. Sénégal toll na ci am na maturité politique xam nga tubaab bi bi mu ñëwee xam nga ñun système bi dañuy nit ñi wax système bi sax mais xamuñu ne système bi. Mm. système bi mooy système bi tubaab bi tegoon. te li ci ëpp pour nord africain yi nax la lañ ay naxaate la foog ne ku dul président de la république yow jubóo loolu mooy lan. Hmm. ku dul président de la république yow mënoo def dara loolu mooy lan wala waroo waroo ko wóolu ñu jël lépp jiital jox ko tuuti nit ci ñun mooy ñiy politique. Hmm. ñoom ñu rek ñoom ñooy décider suñu justice. yàgg depuis 1960. waaw mais dafay dem ay nit yu ñuul ñoo jox leen jikko ju bon ji mais jox leen jikko bu bon bi mais jox leen jikko ji. Hmm. c'est que man lu tax may bañ a focaliser combat yi ak ak ak discussion yi ak discours yi ci nit ñi ma koy def ci jikko yi parce que ki ko téye démb ku yore woon jikko ji may kaas di xeex. démb dafa santoon Wade démb mu sant Sall tey damay bañ mu santaat Faye donc on donne une chance à ce nouveau régime de toppatoo seen wax. mais ci discours yi la sénégalais yi di fale. waaw mais parce que sénégalais yi. malheureusement ci discours yi. la sénégalais di di gëm say kàddu ba fal la nga nekk njiiti réew maintenant ne serait-ce après yow nga mm-hmm. doxal lu baax. ñu am léegi damay ñaan sénégalais yi damay ñaan sénégalais yi ne leen désormais. Mm-hmm. ngir yàlla ak yonent bi nañ di xool nit ki jëfinam. Mm-hmm. ak doxalinam plutôt que ay discours am. yàgg naa ko wax yàgg bind nañ ko jàmmi si dañ koy wax tout le temps ñun topp ñu discours. Hmm. dañuy xool sa jëf yow. li ngay jëf lan la démb d'ailleurs maa ngi ciy waxtaan ak suma benn xel ah, kii kii mi ngi may wax nan man euh, maa ngi ciy wax Mandiaye Mandiaye kenn ci xale yi keroog yaa ngi ko recevoir euh, mu nekk si jàmmi si hmm. bokk ci xale yi ko ŋànk mi ngi ma naan wax ji de dafay dem dafay fàttali benn waxu Cheikh Ibra hmm. Cheikh Ibra Fall dama wax naan maa ngi xaar rek ba yàlla fay wax bàyyi jëf fay wax bàyyi jëf waaw maa ngi xaar rek ba yàlla fay wax bàyyi jëf jàngale bu kawe la mhm. mais ñun Sénégalais loolu mun nañ ko toppee maam Cheikh Ibra mais duñ ko xool ci suñu nit ñi ak suñu homme politique yi mhm. wax ci dafa bëri dëgg la mais xoolal jikko ji dëgg la benn jamono rek naa ni Fatal Barrow nga ne dégg naa mu ngi yoon ci tool yi mais parce que dama gëm ne yoon la mhm. duma ci nekk di ko wax di ko truc def na ba dem na Kaolack parce que dama gëm ne Sénégal mënut a baax te Kaolack gi ma xam mën ko te gën ko comprendre dëkk yëpp ndax moo ma meññ bu ma amee xalaat yu rafet ci dëkk bi naa ko fi yóbbu ba pare mais xoolal leader politique yu yu dankalikoo Dakar yëpp. Mhm. di mbëkkante ka xëccante Dakar xat kenn mënu fi nooyi kenn mënu fi wax lu dégg. ba pare ñu abandonné. ñu abandonné les territoires Dakar la ñu parce que lépp luy alal ak luy jur alal Dakar la gën a yomb. que régions yi ce pas seulement les politiques qui sont concentrés à Dakar. mais yoon boobu moo baaxut moo taxoon ñu indi ñu waxu projet. moo taxoon ñooy dañuy changer doxalin non. Mm-hmm. mais xanaa du ñu soppi doxalin duñ ne dañuy soppi doxalin war a continuer ak li fi nekkoon. d'ailleurs 70 pour cent de l'activité économique. Euh, mais feebar la mi ngi Dakar la concentré. mais feebar bu bon la. 70 mm-hmm. pour cent. mais feebar bu bon la ci dëkk bi loolu tax jàmmi gox yi ci gox yi delluwaat ci gox yi. Mm-hmm. parce que feebar bi gën a mag mooy bi tubaab bi ñooy jël benn suñu capital yi def ko ci tefes bi. xoolal Dakar Conakry Nouakchott nga yéeg Caire Xaayira fële. ca kaw ca nord ba ba ci Cape Town ci Afrique du Sud capitale africaine dañ ko def ci tefes gi lu tax parce que tubaab bi mu koy def dafa créer ay villes coloniales dajale fa économie bu mu xam ne dina ko mën a maîtriser mun ko xool mu jël ko ba ba di capter di yóbbu ci biti moo tax lu ñu am génnee ko ci biti ñun tamit mhm. mais bu ñu ñëwee ba jot suñu bopp soixante ans après xanaa war nañ mën a xoolaat suñu toogaay ak suñu dëkkuwaay mhm. dellu ci biir gox-goxaat yi xool suñu dëkk yi potentiel yi fa nekk liñ nekk di mbëkkante dakaar tey jii dee maa ngi ko gis ñu ngi ko bëgg a régler te ni ñu koy régler baaxut. Hmm. parce que nekk di chasser les pauvres ak les faibles. ambulants yi loolu bu ngeen bëggee ñu nañ si si mécaniciens yi nekk di dàq te xelal moyen de réinsertion sociale yi nga xam ne xale yi ñoo ko créé seen bopp c'est une invention sénégalaise. je fais un big up à Antoine au passage moom muy wax naan la. ma ne ko nag auto réinsertion sociale la dañ ko créer suñu bopp suñu xale yi dem ba di ko exporter ñun rek ngay fekk ñu nekk ambulance France wala États-Unis mais parce que dañu bañ dañu a ñibbeeg dara dañu bañ a ñibbeeg loxo kese. dëgg la ku a ñibbeeg loxo kese da nga ko. Hmm. nga doo ñëw di ko dàq. Hmm. kon noo gisee déguerpissement yi am. présentement mais parce que dañuy attaqué wu au plus faible. Hmm. dañu attaqué ñi nga xam ne. ñoom boo leen attaqué d'habitude après da ngay mën a indi ay tension yi ngay indi ci dëkk bi insécurité bi nga koy indi sax doo ko xam encombrement bi nañu waxante dëgg nday faatu fan la commencé xoolal parking automobile yi ni mu nekkee à lemporte ci grande boulevard yi ku xëy rek jël sa ñett oto gaare baale tali bi mais loolu ñu wax demoo dëgërtéer la dakaar képp ko fi tabax R plus 4 te dafa fa benn garage dañ la war a entendre wala say oto yóbbu leen fourrière borom alal yi mën a tabax ñooy tabax kenn du tabax garage mairie yi kenn aménagé wul benn espace ci biir Dakar fu oto yi mën a dajee ñu taxaw fa. dañuy jël lépp en complice avec les impôts domaine ñu jël lépp dogot dogot ko euh, def ko ay kër bu te bu ko bëggee justifier ñu jël dafa benn juma amul espace bu nit ñi mën ñëpp bokk ñu oto yi mën fa taxaw comme dëkk yu organisé wu. mais lijjanti woo loolu yëpp nga dem di dóor ambulant yi ak jigéen ñi nga xam ne dañuy fortaatu yóbbu dara kër ga. mais encombrement bi xam nañ encombrement bi xam nañ ko. ngay défendre ambulant yi ñoom noonu lañ doon défendre ambulant souvent quand vous êtes dans l'opposition da ngeen di faible. au pouvoir wax nga